dal leen ak jàmm Seydina Fall Bougazali député par assemblée nationale ba woon ñu tëjoon ko ci kaso bu rëbës ci chambre 42 ngir wàllum njuuj njaaj ger ak wéral xaalis bu lewut moom Seydina fal ginnaaw bi ñu ko jàppee teg ko ay daan tëj ko ci kaso bu rëbës daa mel ni bu ñu sukkandikoo ci ay jege ñaaleem njaaxaanaay ak ay xel bu dal moom la tëjee ci kaso bu rëbës léegoo léeg sax bu ñu ko joxee yenn ci ay waxtu mburu ngir mu génn daal di doxantu moom Seydina Fall dafay daal di préféré toog ca kaso boobu ngir bañ di génn ci doxantu boobu di ca daje ak ñeneen ñu ñu jàpp foofu ndax am na benn bët buñ koy xoolee ca biir kaso ba ginnaaw joytu gu jabaram doon joytu ci wér-gu-yaram moom euh, Bougazali ma nga foofu euh, ca rëbës ana nan la dundee arrestation bii nii ay jegeñaaleem yi demoon seeti ko di wax ne moom dëkkewu fa lu dul dafa nekk rek di jàpp di julli ànd kook loolu di daal di euh, nekk ci durus ay xasida sëriñ Touba mu mel ni jamono ji ñu toll moom Seydina Bougazali dara yëngalu ko ca kaso ba ma nga ci jàmm mu ngi ci gundaandaar ndax la muy bañ rek mooy ab stress daal di koy jàpp foofu ba leneen daal ko ciy fekk fu mu nekk ni daal no stress moom ma ngay dund ca kaso ba nii akal mu dal daanaka nag nañu dëgg fi ñu ko dugal kuñ fa dugal nga gundaandaat ndax lan chambre 42 bu rëbës mooy chambre VIP ndax norme ya fa nekk ak li nga xamante ne moom lañ fay tegal képp ku ñu fa dugal na ngay nekk ci jàmm bokkul ak ñi nga xamante dañuy dund lu ñuy wax paquetage réew mi daal li gaay di wax dëgg la soo bëggee daal nekk ci jàmm fexeel bay luubal alal ju bari ndax buñ la ci jàppee buñ lay tëjit dañ lay tey nooy nepp ci yow kon moom Seydina Fall Bougazali euh, ginnaaw sori bi mu sori njabootam moom fa mu nekk tey anamut dara liilee tax ba sonn la xiiful te yox yoxiwul ànd ak loolu la ëpp ci ay jege ñaaleem ak ñee fa nekk dañ koy wax ni ko nay faral di def ay yëngatu ngir wërgu yaramam waaye moom daal dafa préféré rek toog nekk ci jàmmam ci waaye nag bu ñu waxantee dëgg bokk na ci li ko teree génn mooy daje gu muy daje ak ñenn ñi foofu ca prison ba ndax kat nag xam nga ne boo defee njombe wu rëy ba ñëpp gis la ci xam na demee ca prison ba boo génnee ku dana la joxoñ moom daal Seydina Fall xam naa ne dafay rusa dajeek nit ñi moom moo tax mu bañ a ca chambre bu 42 nga xam ne chambre VIP lañ ko tuddee ànd ak rek ci fàttali ñu wax leen ne moom Seydina Fall Bougazelli di woon bu assemblée nationale moom dañ ko jàppoon ci wàllum faux billet ak ger lii lañ leen indiloon ci mbir mi ci delluwaat indiwaat leen ci yeneen leeral yu gën am solo jërë ngeen jëf